Gracias. ndax nee nañu nee nañ leen ba léegi ñu ngi ci bernde yi ba léegi ñu ngi ci ndekkili ah ndekkili lañ toll ba léegi ñoo ngi fii ci kër sëñ bi daal di jàkkaarloog ay soxna yu jongama tubarfakalla macha allah ñoom ay taalibe lañu ah nee nañu liggéey rek la xam te kuy wër bernde ba ñëw ci kër seex kër seex bi rek nga daal di toog soxna si nuyu naa maa ngi lay fay soxna noo tudd. man la soxna Muna Mauritanie. soxna Muna Mauritanie. waaw foo nga jóge ba euh, ñëw fii. 17 avril bi rek ko ko waral waaw. 17 avril bi loo ci yëg. mbégte rek sant Serigne Saliou rek xam nga bu ñuy sant Serigne Saliou ñu ni kon moom mbégte rek la ñuy àndal loolu la rek sant Serigne Saliou rek ak Serigne Béthio ñu yaakaar. lan moo fi doon sa teewaay dama fekk ngeen def laax jëlal ma laax yi nguuda jëlal ma laax yi laax yaa ngi nii soow mi ah caagri baa ngi nii waa dëgg neexul dara jeexul. anniversaire Lat Tir mi ngi taxaw daal di tiim bernde yi nee naa leen sant Serigne Saliou rek Cheikh Béthio Thioune loolu rek ko ñor sant di bernde gis nañ fi lu ne sëñ bi nuyu naa maa ngi lay fay soxna si. noo def. maa ngi sant Serigne Saliou Mbacke bu baax a baax. di ñaan sëñ Béthio jaamu Serigne Saliou Mbacke mu yàgg fi lool te wér. di jëfati Serigne Saliou. dañoo gis nga tiim lii di séddale. ñu lay laaj nan nga nan nga ko dundee. ak lu tax ñu jël lépp teg ko ci sa loxo. waaw xana ci ndimbalu serigne bi rek ah, di ñaan bi ci mu yag fi lol te wër waaw mom li nga xamanteni moy moy moy mooy xeetu bernde yi te soxna si jital ma ci mo doon jëwriñ ji mom ndimbalam képp la ndax li ñu fi dajalé ni ku ko xol di nga xamanteni ndimbalu serigne touba da cee tàbbi doomu adama kasse nit simple bu doon yow yaay dem ak sa xel rek amoo xarañte amo passif bi amo katan gulay def loolu li lépp ndimbalu Serigne Touba moo ci feeñ waaw moo waral ci ndimbalam ci mbaaxam mu def ñu doon jëwriñ ji jiital ñu ci li nga xamante ni mooy wàllu bernde yi nga xamante ni mooy mooy biir Daaru Salaam waaw moom noonu la demee. demee cant gi lan moo ko waral cant gi lan moo ko waral ndax nit ñi bernde bi rek lañ ciy gis lu waral cant gi. waaw cant gi li ko waral moom daanaka sëñ Béthio wax na ko fépp muy daje bu mu dajeeg Serigne Saliou Mbacké dajeem boobu kat moo nu defal sunu mucc gi. moo nu defal sunu tawféex gi dajeem gi ci leen amee àjjana ci leen amee ngërëmal yàlla euh, sunu amee tawféex bay naan ñu ngi takki soxna di ami doom di tabax kër di dugg ci bureau yu baax yi di dawal ci oto yi di am kattan di wér daje Serigne Béthio ak saali moo ko waral sunu lépp dafa dëkkuñu ci daje bi Serigne Béthio daje ak Serigne Saliou moo waral sunu lépp moo waral cant gi nag ndax bu ñuy wax cantkat bu ñu ne cantaakoon ñun suñu ndeyu cantkat mooy 17 avril ndax lépp ci la tàmbalee ci ñun moo waral xeetu bernde yi ngeen gis ñu def daanaka ay bernde la yoo xamante nii def na ñeenti fan ñu ngi ñuy togg di jox jaam ñu ñuy xewlu daanaka li sëriñ bi jënd ci ay nag buñ ci doon lekk ba bés bi siwaat du tax mu jeex te loolee yëpp sant sëriñ Saliou rek la ci sëñ Béthio jublu jubluwu ci leneen lu dul sant ci sëriñ Saliou ndax kat dem na ba xam ne ni sant Serigne Saliou mooy mucc àdduna ak alaaxira ñu ngi lay jaajëfal dañ cee gis jën gis ci pittax gis ci lépp daal cant gi daal dara manqué moom xeetu xeetu xeet bu doomu aadama di mën a jëfandikoo xeet bu doomu aadama di mën a jëfandikoo lu ngeen gis ak lu ngeen gisul lépp mu ngi ci biir waaw xeet yëpp leen waajal kuy defar mburaake bàyyi woo dara mburaake kon am na mburaake am na si gerte suukar am na si gerte caaf am na si lapin am na si dend am na si pigeon lépp daal mu ngi ci biir waaw lépp ngi ci biir. ñu ngi lay jaajëfal di la sant di wax jërë jërëjëfe Serigne Saliou. yaakaar tey ak ëllëg soxna si yow lan moo doon sa teewaay. man xanaa nekk cantaakoon rek ci bis bi kontaan jóge ba nu waa Chod. kontaan torop ñëw rek fa seenee sant sëñ Saliou rek. ak Serigne Cheikh suñu yaakaar tey ak ëllëg xam nga ni ku gis lii rek xam ne Serigne Saliou du ay fo ndax fii dara jeexu fii ci suba ba tey macha allah bég nañ kontaan nañ waaw kon yaa wan big wan xatta